boobu le ànd ngir waxtaanee loolee nag euh, honorable député Juliette Zinga di présidente quatrième coordination Mermoz Sacré-Cœur bu parti socialiste la ñuy dalal ci Demb ak Tay bi ñu am mbégte lool euh, honorable euh, bismillah jërëjëf merci beaucoup maa ngi lay nuyu di la di la sant Fatou donc ci opportunité bi ma jox pour ma mun a toog waxtaan ak yow ci li nga xam ne moom dañuy waxee rek eh, jamono buy dox donc boo nee démb moom am na lu bari lu muy firndeel. donc ak tey fi nga xam ne ne fa ñu jëm tamit donc mu nekk loo xam ne ne que nit daf koy teg toujours si ligne de mire mooy maanaam ci sa doxalin ni ngay dem pour war a mun a xam ne ne que doo teggi yoon wala booy teggi yoon naka ngay def ba jubbanti donc loolu baax na tamit ñu koy natt ci ànd ñu koy natt si lépp loo xam ne ne danga koy liggéey nekk ci pour war a mun a gën a xam ne li ngay dox daal yaa ngi ci mm-hmm. waaw. alors ni ma ko waxee àndu parti socialiste ak APR su ma ko mënee waxee noonu wala Benno Bokk Yaakaar moom la ñuy tey jéem a nat 2012 ba 2022 muy fukki at yoo xam ni parti socialiste mi ngi si biir Benno Bokk Yaakaar ñu tàmbalee démb ana lan moo sababoon euh, dogaluk ànd ak euh, majorité bi wala kiy gagné ci élection 2012 ya bu ñu ca génnee. ah macha allah macha allah macha allah sant yàlla nañuy wax ndax moom nga bu ñu toogee ñu ne ànd boo xam ne nekk euh, depuis def na fukki at moo tax ñu ne lu yàgg dëgg la. donc gis nga ne que euh, bi li nga wax léegi muy 2012 euh, ñu nekkoon ñun wax dëgg yàlla ci parti socialiste demoon ci ay élections. balaa élection yooyu amoon na maanaam waxtaan yoo xam ne dañ ko nekkoon ñu tegoon kuréel nag boo xam ne ne pour waroon a mun a àndandoo pour dindi fi li fi nekkoon mooy maanaam def euh, alternance donc ci biir loolu nag dañu jisoon ne que wax dëgg yàlla euh, waxtaan bi bi mu demee ba ñu ba ñuy liggéey nit ñi dem ci terrain yeneen yi nag mu nekkoon xeex yu tar ci biir dakaar wax dëgg ñu ne léegi nag euh, nañu dem bu ñu demee daal ku ci dem ba yegg premier tour nga génn ku ci génn rek ñu gunge ànd ak keneen ki pour dindi fi li fi ne donc lu boobu temps nag moo doon le président Ablaye Wade bi ñu demee nag ba def premier tour yàlla moo ko tudd def muy euh, euh, président Ablaye Wade ak euh, Macky Sall le président Macky Sall fekk ñun ñii tamit ñu ngi woon ak Benno ak Tanor donc ànd far yàlla def nag yàlla joxuñu ñu ñëw à la quatrième place donc si nañu dem ñun ñëpp comme xam nga ku xam Ousmane Tanor Dieng nga xam ne ne que yàlla na yàlla yërëm ko fi fi mu tëdd mu nga ca dëgg ñun tey ñoo nekk fii mu xam ne nekk nit koo xam ne ne que nitum kàddu la waaw ndax moom loolu dafa bokkoon ci personnalité waaw ndax bu mu la bu la waxee ba ngeen téye dara ci loolu lay téye donc nag ba mu nee nag euh, bu ñu demee daal bu ñu waxtaan ak euh, bureau politique beeg yëpp ba ne léegi daal ku ci dem ñu téyee nga jiitu rek ànd ak feneen rek ñu ñëw jàppal la mu waxoon nag loolu moo tax bi ñu ñëwee deuxième tour ñu jàppale le président Macky Sall. dogal boobu bureau politique bi yëpp àndoon nañ ci wala parti bi yëpp. waaw parti que boobu moom. wax dëgg yàlla ñëpp nañu toog tey sax maa ngi gis ñenn dañoo xam ne ne ñi nga ca ñu nga ca beneen côté bi tey di wax ñooñu ñoo ñoo jiitu woon. waaw parce que boobu temps yàlla may ñu comme ñun tey ñu bokkoon ci bureau politique. waaw ñan ñoom xalifa Sall ak ñoom mii di la wax waaw man mii di wax bokk ba ci woon. ñoom Khalifa ñoom Barthélemy Diaz ñoom ñeneen ak ñeneen yàlla tamit ñoom uh, Idrissa Diallo ndeysaan mi nga xam ne tamit dëddu na ak ñeneen ñeneen ñu ci bokkoon ñoom Bamba Fall ñoom ñi ñëpp. dañu bokkoon ci ñi nga xam ne ne que ñoom ñoo jëloon décision bi ndax xam nga Ousmane dafa nekkoon Ousmane Tanor dafa nekkoon koo xam ne bu amee dara bu ñu koy waxtaanee da ngay ñëw toj ku nekk wax ci sa xalaat li bureau politique ba téye si foofu nañuy sukkandiku def ndax xam nga ne PS dafa am euh, téeméer ak euh, juróom-ñaar fukk nañuy wax ak ñett mooy 138. coordination am dañ ko tas si biir euh, Sénégal gi yëpp. am na nag yi nga xam ne ne mooy branche yi nekk extérieur muy sénégalais de l'extérieur yeeg yooyu diaspora bi donc ñooñu ñëpp dañ leen interpeller donc bu ñu demee waxtaan ci loolu ku nekk dañ lay laaj sa avis kuréel bu nekk mun a wax sa sa avis joxe ko si foofu nag nañuy nañuy joxe li nga moo ñu ànd ndax xam nga ne ci foofu bañ ko defee ba ànd ak moom ñenn ñëpp si nañu amoon yenn poste yii ba ñenn ñi nekk fi député tamit donc yooyu yëpp si nañ ko jëlee woon boobu temps ñun yàlla mayuñu woon ñu nekk député mais on était quand même euh, présidente ci coordination yi di liggéey suñuy coordination mhm. base bi tamit consulté woon nañu leen waaw base moom dañ leen di consulter xam nga dañ defoon aussi dafa amoon euh, comme li ñuy wax euh, souvent dañ naan euh, candidature naturelle hmm. waaw xam nga dañu ñëw ànd ak Ousmane di dem sax ñenn ñi naan balaa muy dem candidat dem ne moom mooy nekk candidat il faudrait que ñu ñëw waxtaanee ko donc ñoom Aïssata Tall Sall ñoom Khalifa ak yooyu yëpp xam nga demoon nañu fi Paris après wax boobu ñëw mm. biñ nee nag il faut ñu def primaire donc biñ ñëwee dañu ne dañuy def primaire si nañu dem teg te mu jigi primaire boobu sax dafa dem ba ba jéggi loolu ndax dañ demoon ba ne dañuy def euh, euh, kii nu mu tuddati euh, changer kii direction parti bi mm. waaw donc foofu il faudrait que yenn yi demoon nañu ba mu pousser mais après bi ñu demee ñu def ko on a vu que mu gi xalifa dafa rocceeku sax yeggalewul euh, élection boobu léegi mu nekk xalifa ak euh, mu nekk ay sata ak euh, Ousmane Tanor Far mu gi xam nga ni Ousmane Tanor moo relevé vivement mbir bi du ma wax score bi sax parce que tey lu bari jéggi nañ ko si ndax li am solo mooy que ne teg na ko ci yoon teg ko ci démocratie laaj xalaatu ñëpp ñi nga xam dañu bokk ci parti bi donc ñi ci bokk tamit def ko mu mu relevé si nañu dem ci élection yi waaw yàlla parce que boobu tam PS mi ngi doon régressé euh, ay score yi mu doon am ci ay élection mi ngi doon wàcc. xam nga du ma ne régressé parce que xam nga PS ba fi nekkee buñ koy lim di buñ koy natt ci PS ba fi nekkee ak PDS boobu parti yi bariwuñu xam nga boo jëlee tey nga koy natt ci ñaata ñaata parti ñoo fi am léegi fu mu nekk. trent 333 presque léegi ñu yegg 400 parti te boobu temps da nga xool population bi ñaata million population ñoo fi nekkoon donc de telle sorte que ne euh, euh, sunu sunu dëkk dafa dox dafa dafa population démographique bi dafa explosé par rapport ak boobu PS nekkee ak jéego yu mu def ba si diggante 2012 nga may wax xëy na donc de 2000 à 2012 donc ci foofu xam nga booy wax nga ne dafa régressé nga bugg jël natt ko ci foofu du du nekk nattan bu baax bi mais li nga xam ne moo am solo mooy que ne ba Abdou Diouf ne jàkk jaa ngi ku nekk noddal c'est pour jox opportunité képp koo xam ne ne ñëw nga àndook moom mun nga dem ànd ak feneen waaye nag ñun dañ see dem ba mu jigi ñu ubbi ko kenn xamatul lu muy nuru boo ko jëlee ci yenn dëkk yi comme ay États-Unis wala yenn yi dafa am ay groupe ñoo xam ne dañuy former tey boo nee socialisme ñu xam ne ni ñii ñoo bokk ay bloc lañ def ay bloc def tey boo jëlee tey ñun ñi génn ci ay socialiste ñëw créer seen yeneen partie comme ay AF AFP nga jël ay URD nga jël ñeneen ak ñeneen ñu toog tey jii ay taxawu Dakar donc dafa bari yoo xam ne ne que dañoo génn di dem boo jëlee tamit ci PDS beneen beneen donc loolu tey mooy que boo koy jëlee di ko natt ci foofu du du régression mbooloo nag day màgg comme ni ñuy wax ñun partie de masse la parti de masse bu mag ndax foo dem ci Sénégal PS mu nga fa ruq-ruqaat boo dugg am na socialiste loolu mooy avantage bi nga xam ne ne que parti socialiste am na ko te nekkul loo xam ne ne que ñeneen parti yi am nañ ko donc loolu muy avantage boo xam ne ne souvent nit ñi dañ koy réeree mbir parce que ñu dañu structuré am comité am am suñuy suñuy section am suñuy coordination union départementale yi union régionale ñëw ci niveau national donc loolu moo tax ne que parti bi wax dëgg yàlla tey booy xool nattu ko 2012 ak léegi mi ngi màgg di dem te xale yi nga xam ne ne que ñoom ñooy fu mu nekk avenir u bi xale yi ñu ngi ci waaw parce que boo jëlee tey ci mouvement national jeunesse socialiste yi nga xam ne ne que sunu camarade euh, honorable député Mambounama Sall moo koy jiite te nga xam ne ne que honorable Yaya Diallo tamit mu ngi si jigéen ñi jàpp ci ci xale yi boo jëlee tey mouvement bi nga xam ne mooy élève étudiants socialistes yi tam ñu ngi ci boo jëlee tamit mouvement bi nga xam ne ñoom ñoo yore yi nga xam ne ñoom kor yi ñoom diib kon ñoom ñëpp ñu ngi ci biir nga xam ne ne ñoom ñooy doxal loolu tey da ngay gis ne que xale yi dañoo ñëw engagé wu ci parti bi te dafa baax ñu ñu ñu leen di ñu leen di encadrer di wax ak ñoom pour que ñoom ñu gën a mën a xam parti bi fan la jóge ak fan la bugg yegg étape yi yëpp si étape parti bi la c'est un donc loolu moom si foofu nañu natt te ni ngay gis ñu structurer wu ci kaw xale yi yëpp lu ñu am ci ci seen mouvement ak yooyu dafa wàcc ba ci suuf comme ñun femmes yi mouvement national des femmes socialistes dafa am tamit ci suuf boo jëlee tamit ñi nga xam ne mooy OS yi te travailleurs yeeg ñoom ñëpp ñu ngi tamit ci biir ku ci nekk am na gox boo demee structuré wu nañu ci foofu voilà alors ñu des 2012 ba tey ndax boobu itam amoon na xëccoo ci biir Benno Siggil Sénégal diggante kan mooy dem au euh, nom de Benno euh, diggante Moustapha Niasse ak Ousmane Tanor Dieng mm-hmm. est-ce que bi ngeen di wax ne ku génn deuxième tour yow la jàppale yéen a ngi doon xaar mu nekk président Macky Sall wala yéen a ngi doon calculer mu nekk Moustapha Niasse mi ngeen doon xëccool non man bi ñuy dem man yàlla xam na ne wax boobu dem nañu ñu toog discuter ko ci parti bi te xam nga bu dee dañuy li ñuy wax booy boo nekkee fenn dañuy bàyyi mbirum tendance ak clan luy réalité lu ñuy wax réel politique réel politique boobu bu ñëwee da nga koy teg au van tey jii daf ñu leeroon ne ko boobu bu doon xëccoo boobu amul woon tey xëj na yi du ñëw nii waaw bu keroogee boobu dina doon euh, mustafa wala mu doon tanoor mais man ba ñu tegee mbir ba dem man pour man xam dama ne woon Ousmane Tanor Dieng moom mooy mooy génn. deuxième tour mooy génn deuxième tour. parce que wax dëgg yàlla liggéey bi ko liggéey ak positionnement bi ñu si def donc bu dul woon yenn si kii moom comme ni ñuy wax rek li yàlla rëdd si jëwu nit kenn mënu si dara donc loolu la woon. mais effectivement xaaru leen woon mu nekk keneen ku dul. Euh, man moom euh, dama ne woon dana nekk Ablaye Wade ak Ousmane Tanor Dieng. man foofu moom laa moom laa jëlee donc de telle sort que ne li nga xam ne liggéey nañ ko ak parti bi nu mu liggéey ba tox ci ak lépp loo xam ne def nañ ko ci wàllu assise yi ak li nga xam ne ne moo doon mbébét bi ñu defoon présent su PS si biir kuréel yooyu ñu liggéey si pour de préparer 2012 donc j'aurais pas dit ne que moom du génn mais nag comme y a eu des aléas yoo xam ne ne kenn calculé wu ko woon mu ñëw te souvent ay responsable nañu nekkal te ku nekk xëy na si côté di wax ak di def donc loolu moo tax mais tey bu doon wax dëgg yàlla dañu tegoon amul woon loolu yëpp mu fa nekk gàllankoor yooyu ndi kon tey euh, xëy na dinañ ne Macky dina ñëw mais après mandat mandat deux mandat yi nga xam ne ne moom nañu souligné alors bi mu nekkee Macky Sall deuxième tour euh, lan moo nekkoon seen réaction bu njëkk non ñun ba ñu man man gaa quand tu perds boo demee ci fenn ngay dem ci xare bu amoon dina am déception dina mais nag amiru Sénégal parce que nag boobu euh, on avait trop trop mal tey jii ne ñi nekk tey jii di xarab tey di wax boobu temps fekkoon na ci suñu xeex ñu def ko ndax bu ma jëlee turam muy Barthélemy Diaz dafa fekk man mi conseillère municipale laa woon foofu ci biir commune bi nekk naa fa 2009 conseillère nekk euh, en même temps chef de cabinet ba 2014 après si laa nekkaat directrice de cabinet donc j'ai deux mandats yoo xam ne dama ko nekk ak moom 12 ans ci mairie mais bu ma jëlee ci mil pàccum 2000 2011 2012 si la fi amoon gàllankooram par problème bi ak ki nga xam ne nañu mbirum Ndiaga Diouf Ndiaga Diouf bi donc nag boobu ñun dañu porter bi parce que ba ñu fa nekkee ba ñu fekk si ñu si mairie bi dañ fa xeexoon te mu métti te loolu dafa bokk ci yeneen ak yeneen donc nag mu nekkoon loo xam ne ne que ñun attente la woon pour ñu mun ko def far yàlla defoon ñu téye ko mu nekk ci biir euh, kaso bi ndax début bi bi ñuy def campagne bi dañu ànd ak euh, Ousmane dem nañ fi sax ba états uni ah dugg nañ fu bari bari dem def campagne pour war a mën a def kii bi mais nag bi yàlla defee nga xam ne ne que léegi Macky moo ñëw deuxième tour ñu jàppale ko parce que nag Ousmane dafa convoqué waat réunion bi mu convoqué waat BP beeg structure parti bi yëpp leen ne que ah léegi nii la demee waaw léegi nag dañoo bëgg ñu war a mën a def am na ñu doon wax sax naan non duñu jàpp duñu def mais boo jàppul foofu fan ngay jàpp parce que li nekk sa kanam <laughs> mooy ki nga ki ñu doon xeex mooy wane ne kon PS xaaruñu woon Tanor ñàkk 2012 non ñun on s'attendait pas parce que ñun dañoo liggéeyoon d'une manière structurée ñun demuñu woon rek si fii xam nga ñeneen dañ doon wax sax si 2012 naan waaw ñoom ñu toog Dakar di réunion Macky génn dem ci ca biir dëkk ba mm. parce que boobu temps aussi bi ñuy wax mbirum euh, assises yi yu ci bari Macky Sall président Macky nangu ko woon jëlul woon euh, dafa defoon ak réserve donc de telle sorte que ne même bi ñu ñëwee ba ci fin bi ñuy doon dem rencontre yëpp nag ñoo doon dem nag boobu temps moom <laughs> xeex la woon comme li olof yi di wax rek raak la woon mm. waaw donc à chaque moment tu t'attendais ñu woo la ci fenn fu ñu war daje parce que ak Ablaye Wade doo doon joxe toujours fi ngay def donc c'est au moment à l'instant même dañ lay wax ne nañu def fii ak yooyu ñu teg suñuy stratégie donc de telle très structuré avec defoon ay plan am liggéey ci. waaw on a tam du loolu moo leen xaw a euh, kii benn côté Macky Sall moom mi ngi doon campagne si bi dëkk bi yéen ngeen toog Dakar rek topp xeexu euh, président Abdoulaye Wade bi. non xam nga boobu boobu temps sax xam nga nit ñi bu ñuy waxtaan teeg moom laay wax ne que toujours. c'est c'est mbirum kuréel yi dajale donc bu ñu demee ba jël fenn dama la ne Ousmane dafa bokk si ñi nga xam ne ne bu ñu waxee dara ñu àndandoo du bugg di ko génne ba léegi seen coalition bi ñu nekk sax dafa naan lépp luy yàq bu mu jógee ci PS donc de telle sorte que bu ñu waxee fenn ñu téye ko fu mu dem te dégg nga si boobu ay 2012 ñun dañ doon wax ne moom Macky Sall respecté wul li nit ñi wax ak yooyu la dañ ko doon wax donc de telle sorte que ne si dynamique boobu nañu nekkoon wax dëgg yàlla nag toog liggéey ñoom ñii nga xam ne ñooy leaders yi nekk ci kaw lañuy liggéey ñun ci suuf ñi ngay liggéey li ñuy liggéey donc man man sama bopp je ne m'attendais pas que Ousmane Tanordin du ñëw deuxième tour donc man ci sama xel yépp di kii dina ñëw euh, Ablaye Wade nu mu mën a doon même si c'est un score faible mais Ousmane Tanordin dina ñëw même président Macky Sall même bu ñëwee deuxième tour aussi rek na loo xam ne ne bett na leen waaw donc ak ñeneen ak ñeneen mais loolu la yàlla dogaloon et puis mu mu mu mu convoqué ñëpp ñu toog waxtaan ñu ne léegi nañu nañu jàppale ki nga mooy deuxième tour jàppale le président Macky euh, Macky Sall. nga ne am na ñu bañoon. non dafa am ñoo xam ne dañu ne waaw mais pour lan ñuy jàppale parce que voilà dañu àndoon ak ñoom Ablaye Wade fa ñu nekkoon parce qu'on a vécu ici aussi 2007 ak yooyu si élection yooyu donc yu bari yooyu nit ñi génnee mais après les gens ont dit bon comme président nga ko mais dañuy jàppale pour mun a dem le leadership dafa am solo parce que booy manager équipe ngay manager surtout euh, euh, un partie de masse dafa am euh, leadership boo war a am te Ousmane Tanor nag dafa amoon leadership boobu waaw donc am na ñoo xam ne ñu bari dañu am confiance ci moom te ba tey jii tamit dafa bokk ci loolu ñu téye ci partie bi parce que ku nekk am na dara loo ko seetee loo ko jàppalee ba nga xam ne ne que tamit man par exemple bu ma nee dama ñëw tey militer ci parti bi vraiment ça veut dire que tey c'était avec l'appel du nouvel élan en 2007 mais man sam sama yaay da doon ànd ak aram jéen ñuy ñu ñuy dem fu nekk de politique boo gisee yenn photo yi ñu doon dem dem ay gore fu nekk génn dem politique donc ñun bu heure voté jotee rek ma ne ko man dinaa la voté PS moom donc je voté je voté donc dama teel di voté bi ma majoré mais bi ma bi ma ñëwee 2007 mu wootee le nouvel élan man je me suis pour pour ñëw si la allin allin Alioune Ndoye mi tey ñëw si la te Alioune Ndoye papam fa la nekk yàgg na fa mm-hmm. euh, tonton Ngiraan ñooñu ñooy les les les fondateurs du PS mm-hmm. donc nga jàpp ñoom Jean Baptiste Diouf nga jàpp Barthélemy Diaz ñooñu ñëpp ñu ñëw fekk fa ñoom Khalifa Sall fa na ñu nekkoon donc ñu ànd ci nouvel élan boobu def 2007 2009 on s'est battu on a raflé ces ces collectivités territoriales muy mairie yi voilà d'accord donc logiquement après 2007 2012 euh, yéen a waroon ñëw donc euh, euh, comprendre nañu mbetteelu 2012 bi fan la jugee alors jàppale bi ñeen président Macky Sall ban jéego ngeen ci njëkk a teg ginnaaw bi ngeen waxtaanee ci bureau politique bi jéego biñ ci njëkk teg mooy que ne ñu jàppale ko ci ci deuxième tour yéen a dem vers moom wala moo ñëw bon c'était des rencontres hein, parce que ñoom Serigne Mbaye Thiam mii ngay gis tey moom ak ndeysaan le ministre euh, comment il s'appelle encore bu LD la Euh, moom tamit fa la ñu nekkoon ñoom ñoo ñoom ñoo doon ànd donc di tout ce qui était affaire élection yi ñoom ñoo ko doon ñoo ko doon traité ak ñoom Serigne Mbaye Thiam ñoom Nicolas njaay mii ngay gis tey ak ba Badiane mi nekkoon ki donc ça c'était un groupe hein qui travaillait dans la dynamique de groupe de Benno Siggil Sénégal parce que ñun xam nga Benno Siggil Sénégal mooy li ñu gagné ci commune yëpp mais bi ñu ñëwee bi ñu ñëwee ci si nañ doon structuré mais ñuy demee parce que ñu nga fa Macky mi ngi woon nag amoon na dekkal ngorom leneen ak leneen donc il y avait Macky 2012 donc il y avait beaucoup de petites structures donc yi fa nekkoon donc de telle sorte que ci dynamique boobu nañu liggéey ñun de xam nañ ne ñun bi ñu nekkoo après Ousmane ñu ne ak le parti a donné quitus pour euh, le président Macky Sall ñun on dañ si dem parce que ma dëkk dañu dem campagne te nag du benn fonds boo xam ne nekk jóge na ci ñoom mu ñëw ci ñoom président Macky Sall waaw ci camp yi foofu seen xaalis ngeen campagne man fa dañu téye ñu campagne ñun ñoo ñëw siégé nañu ñu doon ñëw di def ñu ne dañuy siégé tewu sécurité dañ ko soxla ci wàllu sécurité aar sunu sunuy sunuy centre de vote aar sunuy bureau de vote sunuy représentant dans les bureaux ñu defal leen formation donc on s'était loolu yëpp Ousmane Tanor moom moo nekk ci ci base bi def ko donc ñun amuñu woon interlocuteur lu dul moom waaw Ousmane Tanor Dieng hmm. man moom wax dëgg ba mun naa wax <laughs> presque que bi may ñëw nekk député euh, sama interlocuteur c' était mon mon mon parti c' mon secrétaire général donc euh, du ñeneen fii ñoo xam ne ne ñoo doon sama interlocuteur donc en ce temps là aussi mon secrétaire général dans le au niveau de la commune bu Mermoz Sacré-Cœur du woon Barthélémy Diaz la woon donc Barth était adjoint et maintenant gis nga même bi ñuy def liste élection locale yi dañu waxoon ne dafa làqatu ji si liste yi nekk quatrième il venait après moi mais boobu dafa fekk ñu commencé appliquer parité et tey mu ngi ñoom Soham Wardini nii ñoo nekkoon tête de liste il y avait aussi une autre dame bu nekk léegi LD Debout moo nekkoon ci proportionnel bi muy madame Wan donc de telle sorte on s'était organisé si foofu donc c'était structuré et ça permis à au président Macky bi ñëwee ak 26 pour cent bi muy dem euh, tour que loolu yëpp gis nga yeneen parti yëpp yi ñëw ñu joxe ko ba mu jàll noonu avec un gros score mm-hmm. alors euh, ban engagement le président Macky Sall jëloon ci ndajeem bu bu officiel bi mu njëkk ak waa parti socialiste dañuy dañuy euh, organiser wu parce que moom wax naa la ko sànq ay parti parti ku nekk ñëw benn ak Tanor a ngi fi woon Moustapha Niass ak AFP mi ngi fi woon euh, Macky Sall mi ngi fi woon ak Macky 2012 ak yeneen ñeneen ñi ñëw amoon na tamit waa LD bari nañu parti yëpp yi ñëw donc c'était de s'organiser ak euh, appel bi mu defoon au niveau de Yoff bi nga xam ne ne gagné nañu maintenant c'est de de de de de travailler gagner ensemble gouverner ensemble donc loolu la woon donc euh, du woon dynamique nga dem toog mu ne la waaw am saa la jox lii jox fii non non ça mm. n'a pas eu lieu ça bon franchement euh, c'était la bonne dynamique et si finalité bi mooy dañ ne woon dañuy créer Benno Bokk Yaakaar donc cette coalition qui qui vit ba léegi te ñu bari comme li may wax euh, bu des fois nit ñi dañoo ma ne ko indi leen doomu taal ma diw ma diw ko parce que <laughs> cat bugg waru si ndax effectivement c'était xëj na sax ba fi mu yegg nii moment bi ñu ko doon monté ñu bari xalaatuñu woon ne dina am pérennité bi waaw c'est ça maintenant parce que yu bari ci ay coalition gis nañ ko nu mu doon demee mais nag bii wax dëgg yàlla ñoom ñu dem ko te loolu moom lay wax ne yàlla moo fay xol yi bi ñu koy monté moment boobu parce que c'était avec euh, vraiment la franchise la cohésion et la cohérence de ce que nous faisions benn hic bi ci posé woon rek nit ñi demoon nañ ba wax moo doon euh, résultat wu assises yi te nga xam ne ne que euh, le président Macky Sall daf ko signer sous réserve donc loolu demoon na à un moment am na ñuy wax ne waxu fa woon waxu réserve daa ñëw ba falo bëgg fee indi coow réserve waaw bon nit ñi comme man tooguma fa woon donc je pouvais pas le dire mais j'étais tout dafa signé sous réserve maintenant loolu nekk na si loo xam ne ne que l'essentiel même bu dee dee dafa def si réserve mooy que nangu naa lii mais lenn lii maa ngi xaar wala ma moytu wala ma xool waaw ma xoolagum nu muy demee loolu yëpp mën na si nekk mais nag nit ka fa mu toog di ko def moo mun a xam si quel kii la sukkandiku pour def loolu waaye lu mu def rek mooy que ne ñu rafetlu la mise en place de la coalition te wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee ñu ne woon nañ si def ay jéego ku nekk liggéey bi ñu ñëwee ñun wax dëgg yàlla PS euh, au début def liggéey bi on avait on avait euh, Euh, la présidentielle avec les locales euh, la présidentielle avec les législatives donc bi ñu ñëwee ci présidentielle euh, le président Macky Sall jàll na mu desoon législative yi hmm. législative yi <laughs> gis nga ne même Barthélémy Dias dañ ko génnee ci biir kaso bi mu ñëw mais fekk na boobu temps mu purgé mu purgé ces six mois parce que moom biñ koy biñ ko jëlee ci ak njaga njaga njaga juuf bi dañ ko defoon deux ans dont six mois ferme donc nag euh, moment bi ngay xam ne dañuy def législative yi ba fekk na boobu moom purgé na penam ba pare muy six mois yi léegi nag si la dem dañuy def ak amende mu amoon amende vingt cinq million hmm. boobu nag mu ngi fekk ñuy tamit ci mairie bi parce que foofu nañ ne woon nañu jël ci mairie bi comme c'était une attaque boo xam ne directement ci suñu structure foofu la woon que mairie bi jël engagement avec le conseil municipal ñu fay vingt cinq millions yi ñu bàyyi mais il avait refusé moom Barthélémy Dias moo bañoon waaw mu ne mu ne moom du nangu loolu il faudrait que ñu ñu ñu ñu dindi euh, kii bi yëpp liñ ko condamné woon defal ko non lieu ak yooyu mais tu sais souvent tu as des conseillers les avocats ñoo xam ne ne que ñoom ñoo lay def léegi nag mbébétu avocat ak sa mbébétu bopp du nuroo waaw parce que les objectifs euh, man si dama ne woon nañu jël loolu nga xam ne ne que tey dem na muy loi mu ñëw et puis ça avait ça avait impliqué deux autres jeunes yoo xam ne xëy na ànd ak moom Barth rek moo leen dugal ci loolu xam nga muy euh, Habib bien ak Babacar Faye donc de telle sorte ak ñeneen ñi nga xam ne ne sax gaañu woon nañ si ak yooyu mais c'était des blessures légères taxul ñu yóbbu la fenn wala dara mais quand ça a marqué ça a marqué des esprits donc de telle sorte que ñu wax mais si la yàlla defoon bi ñuy monter list bi Ousmane Tanor Dieng dama li may wax légaliste la parce que moment ñu bari dañu ne waaw daf di dañu génnee Barthélémy bi dugal ko ci biir kaso bi mais Barth bi ñu koy bi ñu koy def ci liste yi moom moo doon le responsable national des des jeunes des des des jeunes comme bu place Bounama bana Bounama Sall honorable mm-hmm. Bounama lu mu yore moom moo ko yore woon mm-hmm. donc nag moom booy dem daf lay jox li nga xam ne mooy sa mooy sa mooy sa yoon waa sa gëdd mm-hmm. moom moo ñëw si xale yi. gis ngeen Aminata Diallo tamit honorable moom tamit ñëw. ça daf ko jox li mu moom waaw mu moom loolu la ko jox. waaw parce que ñun sunu sunu parti dañu am les adultes muy góor yi bu ñu ñëwee gis nga ne boobu ñoom maar Diouf ñëw nañu. nga jëloon Aminata Mbengue Ndiaye boobu aminta may nga duggul si la ko jox Aïda Sow Diawara. Mm-hmm. mooy rek mooy mooy si mouvement au nom du mouvement national des femmes socialistes. après day am jeunes yi jeunes yi bu ñuy investir sax dañ naan noo dañu investir responsable bi ku jigéen ki xaar mais moom Ousmane dafa naan noo jox leen cër yi mm. parce que dëgg la ne ku góor ki moo englobé mouvement bi yëpp mais dañu am cellule féminine si biir waaw parce que ñoom tamit am nañu solo ci taxawaay bi donc loolu moo tax mu jël ñu dugal leen et c'est la même chose moom la ñu defaat ci ci waaw si si bi ñu ñëwaatee di euh, en 2017 ñu def ko donc de telle sorte que ne toujours moom day topp li nga xam ne ne moom nga am sa gëdd mm-hmm. mu jox la ko looloo indi woon ñu def ñu bari n'ont pas compris waaw jël nañ ko ci prison bi indi ko ci foofu voilà mais nag euh, ñun ñëpp comme au niveau du parti on a les adultes nous avons nous les femmes dañu am 30 pour cent ci si suñu gëdd xale yi am 20 pour cent suñu gëdd gis nga tey xale yi ñu ngi demandé 30 pour cent et nous les femmes on demande la parité euh, si yooyu donc lu ñuy nekk négocier la di ko waxtaan parce que 2017 sax bi ñu defee on a eu 10 15 députés mm. mais les 11 yëpp ay jigéen nañu woon il n'y avait eu que 4 4 euh, euh, donc ñu ne ñun xamuñu fu ñu leen jaar Ousmane daf leen doon tooñ ne leen mais femmes yi il faut ngeen xool leen ah il faut les surveiller gis nga ñoom tëb nañu sax parité <laughs> parité elles ont eu mais quand même yàlla defoon na ko c'est par rapport aux investitures c'est paritaire sur les listes mais tu sais si gox goxaat yi boo ah. demee dans autres départements dañuy jël fi góor wala ñuy jël jigéen wala ñuy jël góor ak jigéen et c'est là on avait eu cet avantage d'accord alors ñu tàmbalee nag 2012 euh, PS gouvernement bu njëkk bi euh, ban taxawaay la ci amoon gannaaw bi président Macky Sall gagné président Blaye Wade waaw bi ñu ñëwee on avait trois trois waaw parce que xam nga daar dafa bokkoon euh, ci euh, Benno ak Tanor bi donc loolu moo taxoon ñu amoon ministère bi mu yore woon environnement ndax xam nga Aydar moom ci loolu la doon liggéey il y avait eu Serigne Mbaye Thiam il y avait aussi Aminata Mbengue Ndiaye xam nga nekk na ba ñu tegee loolu mu mu yore ministère élevage donc def fa nag wax dëgg yàlla ba tey ji nit ñi di ko di ko nam ma waaw parce que li mu fa liggéey teg ko structuré waat loolu nga xam ne mooy ministère bi te début bi sax dañu ñëwoon di wax ma ne leen ah ñoom dañu jël ministère yu métti jox ko jox Ah waaw parce que quand tu prends l'éducation ça c'est un c'est un c'est un ministériel balèze boo xam ne nekk bu rëy la. te nga xam ne nekk waaw bari coow. xam nga avec les syndicalistes xale yi ak yooyu yëpp mais quand même il yu eu à parce que def na fa moom defe naa 6 ans donc def ko liggéey ci moom tamit lu mu dem aminta ministère de l'élevage tamit mu liggéey ci lu bari def ko ci. boo jëlee tamit ministère environnement développement durable bi. ay daar moo fa nekkoon donc ay daar gis nga ko même seen bureau bi foofu si la ko si la ko jëloon ministère bi mais euh, mu nekk tamit bu métti parce que xam nga fépp foo xam ne forestier yi dagg garab yeeg dugg ci leneen ak yeneen donc c'était un peu difficile ba mujj gi moom dañ ko wàccee woon mais après ministère boobu joxaatuñu ko PS hmm. voilà donc ministère bi président daf ko jox keneen mais comme li ñuy wax ñu bari sax ci biir parti bi wax dëgg yàlla wax nañ ko ci instance yi meroon waaw mer nañ ci parce que tamit euh, bu dee da nga génnee si benn quota parce que noonu nañ ko téye woon bu ñu ko génnee ci benn quota da ngay da da ngay dellu delloo mu ñu remplacer peut-être si c'est une faute wala xëñ na nit ki mënatul mais l'essentiel euh, ce postulat ne nous est pas revenu ba léegi noonu nañu continuer woon mais Ousmane dafa ne rek euh, ak ñëpp ne ñu nañu jàpp rek pour euh, ndax fi ñu fi ñu jëm pour Sénégal moom moo ëpp solo que benn post wala leneen waaw donc même tey bu ñu joxul woon benn post tamit dañu war a toog liggéey parce que c'est un engagement commun bu ñu jël mm-hmm. donc c'est dans cette vision moo tax après ñu bàyyi loolu alors après 2012 ay euh, local jaar na fi 2014 mais événement bi gën a marquant pour parti socialiste mooy ñàkkul référendum bu 2016 bi nga xam ni seen xaajalikoo euh, dëgg-dëgg ci seen biir foofu la tàmbalee est-ce que mun nga mun nga mun nga ñu ñëwaatal ci loolu il y beaucoup de points de point yoo xam ne dañ ko teg ñu waroon a constitutionnaliser loolu xam nga teg ko mu mu ñëpp gis ci seen bopp ressources yi tey ñuy wax da nga xam ne ku nekk am nga ci baat wax tey bu bu doon tey jëluñu woon décision yi doo ci toog di ci wax parce que état da koy defal lu muy lu muy def rek mais tey yooyu yëpp mu nekk ay points yu am solo yoo xam ne dañu ñëw taxaw di ko di ko def parce que dama ne woon bu leen xool yéen maire yi ngeen xool yéen li ngeen ci am rek parce que le conseil municipal etellement tellement important parce conseil municipal da nga ciy gis ki nga xam ne ne moo lay jox cutis moo lay voteel nga koy woo waxtu bi nga koy woo xamoo ci lan la nekk te pourtant du dërëm boo xam ne ne que mairie ba daf ko koy jox mais yow maire beeg say adjoint dañ leen di fay chaque fin du waaye ñoom ñii duñu def te dinañu ñëw donc am na loo xam ne ne que gëdd la bu ñu war a jox ñi nga xam ne ñooy conseil donc nekkoon na daal si benn boo xam ne dañ ko wax mais finalement gis nga tey li ñu nekk fii di wax ci borom ñaari tur yi yëkkati woon ko fa mm-hmm. donc nag nga xam ne ne que mag du caaxaan mag du fo te mag da ngay da ngay da ngay ragal ki ñu tiim muy yàlla donc yàlla comme li may wax toujours il est bon et il est juste donc bi ñu defee mbir mi dem nañu wax ba jóge fi ndekete seen voyage bi nga xam ne que dafa tombé woon ak euh, salon de l' agriculture France ku nekk génn daje jeeg ñoom se nañu defee ji seen plan boobu ba ñuy ñibbisi tamit ku nekk jaaraat ci avion bu bokkul ak sa morom nga ñëw ñibbisi kon daje nañ fa ba nas li ñuy nas daje ba nas la ñuy nas ñun ñu toog fii nag ne xóot xóolaare parce que di nga ne ndax euh, Ousmane bi ñu ko waxee ne que ñi am na ñu par defe ñun parti nañ nekk parti de masse te ku nekk am nga fi cër di nga ñëw nga wax li ngay wax ak yooyu bu nekk excédé rek pour dem c'est tegul woon joxul woon dayoo. ñii li ñu li ñu préparé. waaw donc ñun nag dégg nañu ñu doon préparé ci piscine olympique ak def seen yeneen ak yeneen yooyu yëpp jënd yi ñu jënd cotiser dañoo cotisante seen biir donc yooyu yëpp ñu def ko. léegi ñenn ñi nekk fa dem waaye nag ku ci mel ni baat dafa dem ba pare ñëwul sa jour attaque ba ñëwul moom mu ngi ko fekk mu toogoon foofu nekkoon France mais ñeneen ñi ñëwoon ndax ñun ñëpp ñu ko fa ndax ñun dugguñu si saal ba mais ñu nga toog ca buntu saal ba waaw ba ñu waxee tamit ñaari yoon euh, secrétaire général Ousmane président Ousmane Tan Ousmane Tanor Dieng dafa ne ñoom ñoom xalifa ak ñoom Bamba génn leen wax ak seen ñi parce que yenn yi duñ ko nangu ci fii mun nañ fi wax nga def yëpp yay doom boobu ci boobu ci biti cour ba mu ngay jax lu nekk génn na fa donc nag de telle sorte que ne c'était c'était douloureux parce que ay nit yoo xam ne dañu yàlla moo ñu boole. depuis des années ñoo xam ne ay suñuy xarit ñuy àndandoo. mu am yooyu day métti. parce que relation groupe yàlla mooy boole nit te bu bu bu leen boolee ñuy ànd am na yenn yoo xam ne ne du xaj ci biir. waaw te boobu nag dañ si dugal loo xam ne ne bokk ci c'est c'est pour cela mu mu nekkoon lu douloureux lu métti wax dëgg yàlla. te vraiment ça a beaucoup surpris nag euh, Ousmane Tanor Dieng. ok waaw ça l'a beaucoup surpris. alors comme dugg nañ ci référendum bi ñu taxawoon déggum ci dama bëggoon épuiser élection yi soog ci ñëw mm. euh, booba itam fekk na ñu tàmbalee ŋàññi Tanor ak doxalinam ak toogaayam xëy na ci biir Benno. mais ñi ko ñaañu du kenn ñi ko ñaañu du kenn mooy ñii. Mm. xam nga ànd nga ak nit. parce que moom boo xam ne ne que tout ce élection nga gunge ci nit dañu ne mandat mandat day am benn ñu may nit ki mu ñëwaat ñaar xëy na tey ñoom ñii di wax nii sax si ay maire ak di def nii ñoom ñi ngi ay trois mandat ak dem <laughs> ñenn ñi ñu ngi ci quatre mandat am na ñu ëpp sax loolu et puis tu veux aujourd'hui nga ñëw nga ne ànd naa nit ki benn mandat nga ne ko léegi nañu dem ñu génn ci parce que boobu temps si vous n'oubliez pas Khalifa day wax ville de Dakar mu nekk waaw am na yenn kii ñu jël c'est pour xeex ko ville de Dakar mais boo doon jël boobu temps Barthélemy Diaz ànduloon ak moom ànduloo nag moom même bi ñu ñëwee ñuy voté fii le code général des collectivités territoriales moom bi ñu ko waxee boobu mu ngi député moom moo défendre ci loolu si la bokk ñi ko défendre. Barthélémy Dias waaw donc de telle si loolu def man mu def ma xeex xeexuma aussi quand tu gères les deniers publics mooy xaalisu mbooloo boo koy gérer dafa am loo xam ne ñu fay xam nga kii mi ngi def nii damay def même chose boobu yow ak moom a yem. Hmm. waaye kii mi ngi def nii yow nga def li nga am moom la la yoon teg loolu moo te et aussi il a la logique de la comptabilité. man mii di wax ak yéen je suis de formation comptable donc dama def BP comptabilité waroon defi expertise mais jamono dem mu jigéen ma bàyyi expertise bi yem ci sama <laughs> liggéey noonu. Hmm. mais li ci gën a bari ci li ma ko liggéey dama ko def dans les mutuelles d'épargne et de crédit et les mutuelles de santé. boobu temps ñu ngi koy doog a di monter donc tout ce qui était gestion euh, euh financière donc comptabilité financière beeg yooyu yëpp ñun ñoo ko doon def si loolu donc administrative et donc de telle que ne. ci loolu dafa am logique bu comptabilité di doxee. waaw boo yoree dara buñ la dugal jamais ci yenn yi te la gestion municipale dafa am nu mu nu mu tëddee. nomenclature yom am nu muy tëdd am nu ñu si génne si le problème mu caisse d' avance yooyu ñëw donc nag yow booy xeex su déggee daal xalifa dafa fëte non foofu moom dafa fëte man moom nee nañ nit ki moom wax dëgg yàlla bu fi nekk di ko di ko di raayal moom fëte na ay collaborateur am fëte nañu parce que gis nga nit boo ko àndeek moom danga koy protéger sàmm ko parce que déjà surtout boo àndeek maire da nga koy da ngay koy préserver image am waaw ndax ndax lépp mënu koo yore mais yow mi nga xam ne yaay collaborateur am yow yaay veillé ci moom man nekk nekk naa 12 ans man nekk chef de cabinet Barthélémy Diaz nekk directrice de cabinet donc je l'ai je l'ai fait ànd ak moom te lépp waxuma ne lépp est parfait mais mairie ba tey wala ñu bari dañuy dem taxaw ñu xarab Juliette wala ñu wax ci moom lii c'était dans cette dans cette gestion waaw parce que munoo ñëw seetaan muy def yenn yi wala ñu di ko ci dugal hmm. bu ñu demee nag ba nga xam ne ne sës na parce que tamit wax dëgg yàlla am na ko te yoo xam ne daf ci dëgër boo demee nga nga naan la lii dama la koy wax pour que ëllëg nga ne ah waxu na ma ko et devant témoin waaw parce que nag des fois il y des frictions hmm. mais danga nga koy wax ba mu xam ne ne que lii du yoon hmm. ñeneen ñi nekk ak moom di liggéey ak moom nag nga ne leen lii ngeen def du loolu mais loolu mas na laa dal ci Barth. non chaque fois on se frottait chaque fois on se frottait parce que des fois dafa naan mais man maay maire yow doo maire ne ko waaw mais man maay sa man maay sa directrice de cabinet je suis ta collaboratrice te am na yenn yoo xam du ma ko seetaan. ndax man lu may seet mu xam ne bu ma ñëwee mu gaañ ma wala mu gaañ la <laughs> je ne vais pas l'accepter et avec euh, vraiment euh, mairie ba ñi fa nekkoon nag euh, xam nga surtout il y a secrétaire municipal am comptable yi am nii ak ñii souvent nit ñi dañuy bëgg di def dara boo ñëwee mu laaj la fi mu dem mu jigi daf leen doon wax ne que lépp luy ñëw comme parapheur signature bu ko Juliette xoolul du ma ko laal donc nag xam nga yow boo ñëwee moom Khalifa Sall day ñëw rek toog pour signer mais yow kii sa directeur de cabinet wala sa chef de cabinet wala sa yeneen collaborateur ñu indi dara pour kii il y a quelqu'un war na ko lire xool lan la ñu xoolal la et bu ñu xamee ne que lii wax dëgg yàlla kenn moo ko def pour ko neex war na ñu mun a taper sur la table xam nga kon ñu toogee même fii sax keroog gis nga seen waa coalition bu bees bi ñu koy tooñ naan ko yaa jël ceeb beeg fii donc am na sax comme li kii di wax bu booy jël dara nga ne lii dañ koy def sax xanaa boo ñëwee di nga fa gis ay pepp pepp <laughs> tu vois donc il y a yoo xam ne il faut pas prêter le flanc donc problème yooyu mu am à l'interne hmm. au niveau de la de sa mairie loolu la indi au niveau du parti mujj gi indi ko ba mujj gi tamit au niveau de la coalition donc mu nekk benn fii te comme nag Ousmane. mu jàppoon ni parti ko jaay. ndax boobu itam tàmbali naa xëy na bëgg a. waaw bëggul leen parce que nag Ousmane li mu wax da ngay toog nga waxtaan ba et puis y avait ça parce que man. dama nekk euh, agent de la ville de Dakar en en 2009 man man ko mi foofu laa woon. donc nekk fa di liggéey. mais après bi ñu ñëwee dañu am ay prémices pour di def euh, euh, tendance. man nag comme man nee naa tamit euh, béy laa rek balaa may dee tàggoo man lépp loo xam ne dañ ko bokk dañ koy teg ci table bi ñu waxtaan ko. parce que nag comme je lui ai dit dama ne ko moi je suis né libre et je mourrai libre ma ne ko man bokkuma ci nit ñiy def tendance man loolu moom bokkul ci man quand de des choses je le dis fu ma ko war a waxee. donc nag bi ma gisee ne que wax dëgg yàlla ñu bari amoon nañu ñu jëloon ñu nekk ci ville de Dakar ñenn ñi di liggéey ci fii après dafa nekk ñuy former groupe. gisatoo ci sa bopp voilà mujj gi li nga xam ne dañ doon def pour di structurer département de Dakar toutes les réunions duñ ko defati maison du parti dañ koy con dañ koy convoquer ville de Dakar. ma ne ko nag du fa dem parce que ñun xam nga Ousmane Tanor bu amee ay gàmmu màggal ak yooyu dañuy dañuy def délégation di dem chaque fois buñ ko doon wax pour ñu ñëw ñu dem. moom dafa ne non du ànd si foofu parce que buggul ñu ville de Dakar ñu mélanger ko ak maison du parti moom Khalifa Sall waaw donc de tele sorte que ne toujours moom day demal boppam après ñun PS demal suñu bopp donc nag bi ñu demee nag ba yëf yi ñëw ñu bugg dafa defee dama leen ne non man la ville de Dakar du sama du sama permanence waaw permanence bi maison du parti la donc xalifa lu mu lu mu ñàkk jot ñàkk jot day ñëw maison du parti pour mën a euh, def foofu réunion mais que ñëpp boobu dem man ils ont fait ces réunions je suis oui ah oui moi je suis restée fi ma toog te maa doon présidente quatrième coordination A donc loolu def na ba ñun bi ñuy dem renouvellement ñu dem gelé ñu hmm. dañ ñu gelé donc de tell sorte que gelé nañ ñu ba bi ñuy bi ñuy ñëw di defi élection 2014 donc de telle sorte que ne am na yoo xam ne dañ ko subir hmm. par des intérêts crypto personnels boo xam ne ne que yow sa bopp doo ko maîtriser voilà donc ñaar ak ñett ñooy toog ñuy duggante dem ci kër fii dem ci bureau fii ñu koy def te boobu temps yow da toog rek di yore benn mbooloo boo xam ne ne souvent dañ lay interpréter doo xam si lan nga leen di wax fekk nag am na ñoo xam ne ñi ngi toog di lijjanti leneen beneen boobu tamit boo si rappelé woon lu bari dañ ne woon que le président Macky Sall dafa ne que moom day wàññi day wàññi mandat am donc nag bu koy wàññi non dañu war a dem élection 2017 dañu war a def nii parce que bi ñu jógee ci 2016 bi dem nañu buruxlu pour ne mooy que ni ñenn ñi dañu demoon ne dañu ànd ak euh, Khalifa Sall ànduñoo xalifa Sall il voulait coûte que coûte ñu dindi Macky sàll pour teg fi xalifa Sall xam nga ndax lan parce que ñoom boobu ñu ngi ñëw yegg si si âge u nee nañu bu war a mën a déposer candidature président. waaw ah, parce que lañ def législative euh, locales yi moo dalaloon seen xel ak taxawu Dakar ñu gagné ay localités yu bëri. 2014 ñu ne comme léegi wax waxee ak dugg na fee waxoon na ne dina génne donc ils se sont organisés. bugg bu bugg génnee fi euh, le président Macky Sall xalifa bu ñëwee toog ñu ne xalifa dina fi def à peu près deux mandats léegi après bu demee ñoom ñu mun a positionné. parce que ñoom kon 2017 looloo nekkoon plan bi. non il il il bi ñuy def noonu ba attaqué maison du parti. Hmm. ba ñëw toog def si kii. tout ça là c' était dans les plans. mais boobu yëpp xalifa waxul ne moom. Euh, non xalifa fan nga mos déggee xalifa mu ne la dem ñii nii mën nañu jàppale ak ñooñu kañ ñoo naan ko ñun xalifa lii xalifa lii mosoo dégg xalifa mu ne. man maan damaa bëgg dem nekk président. kon est-ce que am na lu ngeen ko mën reprocher. ci foofu non li a reprocher mooy que ne xam nga nit booy ànd ak moom. wala muy wax ci sa tur yow am nga droit nga ne ko ëpp laa ndaxte boo ko waxul rek nga xam ne ne ci nga ànd. ba ñuy attaqué maison du parti ba ma ba nit ñi di wax sax yàlla xam ne defoon naa ne moom bokkul parce que dama koy woo ñu nekk xarit def yëpp. mais bi muy génn di wax ak ni xale yi def laa xam ne ne que moom moo nekk au centre. Bamba ñu nga ca woon. donc ñoom ñii ñu dafa woon donc ça veut que dañ doon rencontré wu fenn di def la ñuy def ñu def ñi nga xam ne ne nag ñun ñi nga xam ne dañ dañu contrôle bañ nañu woo nañ ñu ca liggéey ba bañ nañu pour ñu dem foofu parce que dañu mujj jël personnel ville bi bëgg ko structuré def ko noonu xam nga boobu temps amoon na tamit les les agent volontaires de la <laughs> ville de Dakar yooyu donc c'était une masse donc de telle sorte que ne yooyu yëpp ils ont voulu euh, occuper ça utiliser ko à des fins yoo xam ne naka mënoo ko wax. parce que boobu itam ni Tanor yore parti bi ñoom neexu leen. jàpp nañ ne parti baa ngi doon dee mi ngi seey ci biir. waaw euh, mais Tanor euh, xam nga day day def visite. Tanor day dem visiter ci union yi day déplacé wu dem ci région dem ci département bu ñu xëyee dem le matin nga ànd ak moom 23h minuit ngay ñëwaat toog pour lekk. tu quittes là-bas petit déjeuner nga dem dugg ci biir région ba département ba dem ci village yi dem fu nekk fa na ñuy dem bu ñu duggaatee ci hôtel ba wala fa ñu dal. foofu ngay doog a ñëw. toog PS mi ngi doon continuer massification bi. mais nii on continue toogu leen woon rek nekk si benn hmm. que ñeneen ñi nag du ñu dem. man man du ma doon dem tournée Khalifa nekk fa. Hmm. oui et quand tu dis que général chargé de la vie politique du parti mais bu bu Tanor di déplacé yaa nekk ci wetam. yaa nekk ci oh, wetam seen dafa xawul ñagas. non du ñagas parce que tu les vois ils sont toujours là waxtaan def nii hmm. mais tu tu sais ànd hypocrisie baaxul. la sournoiserie du baaxul nga toog nit di ko reete fekk na ci ginnaaw yaa ngi pare leneen loolu mooy yàq te nag comme li may wax toujours yàlla boo ko tegul sa kanam doo dem tout wax ma sax muy yàlla parce que mën na ma ne ko mooy musulman comme catholique mm-hmm. sa religion si boppam dafa la ngay dem ak fois ak gëm-gëm ak respect du prochain mm-hmm. rafetal ko rafetal ko donc nag yow bu ñuy dem tournée moom du bokk ci tournée du ñëw il est toujours à Paris wala mu dem def consultation wala ca da nga doon jàpp ne c'était waaw bon pour man début bi da ngay dem ba mais 2016 bi ñu ñëwee ba référendum bi yenn yëpp suivre si. si laa xam ne ne lii bañ ko nasee yàgg na ñun ba lañ doon rafetal. di def yéen xamul woon ñun ñoo xamul woon lu xew. parce que dañ doon gis ay prémices parce que bu amee réunion des fois doo ñëw wala nga ñëw def une minute nga génne dama am lii wala yenn yi toujours mu am ñoo xam ne ne dañuy xarab et puis ba toogee ci biir instance yi di nga wax sa wax dañ la koy jox. peut-être que bu seree minoritaire parce que lii ak lii ndax li nga bëgg duñ ko def. ndax bëgg génn benn Bokk Yaakaar rien que pour yow ñu jàppale parce que danga ne dañ lay xeex dañ lay xeex si naka. ci est-ce que du Tanor lañ bëggoon déjati aussi. non loolu c'était leur objectif aussi. waaw mais nag xam nga tamit euh, ku yàlla teg te tant que yàlla newul pare pare pare naa si <laughs> munoo cee def leneen yow sa bopp rek ngay ak say mbëbët. waaw mais nag euh, fekk na boobu ñu def te Tanor wax dëgg yàlla amul kenn koo xam ne nekk nga ci parti bi te tanu fekku la fa nga dëkk. amul kenn koo xam ne nekk nga ci parti bi te am nga sa soxla wala sa yéene wala leen te ñëwoo nga toog mu déglu la ndax dina tegle tànkam toog déglu la boxam loxoom yi def nii déglu la ba nga pare mu tontu la muy tontu wax ak yow la mu lay wax mu pare te loolu muy wax ak yow bu génnee ci mbedd mi yaa ko génnee saa c'était le fort de Tanor parce que nee na un homme d'état ndax nekk na fi ba jóge fii loolu ñëpp seedeel nañ ko ko kenn musu ko dégg mu wax leen la retenu te ku ne xam na ne it xam na lu bari macha allah ñu bari na xamal na te yombut yóbbu na ko. loolu moom seedeel nañ ko ko alors 2017. Mhm. gis ngeen seen bopp ci législative yi ñaata député ngeen ci am ba ngeen ci génne. en 2017 on est là actuellement 15 députés la. waaw parti social. 11 ñi ak. 11 euh, yi jigéen nañu fukk ak benn yi jigéen nañu ñeent yi ñooy góor. ci investiture yi. Mhm. naka la demee woon est-ce que gisoon ngeen seen bopp ci investiture yi laa doon bëgg wax. ñi dugg ñëpp ils étaient quand même bien placés am na ñoo xam ne desoon nañ ci liste bi parce que le nombre je me rappelle plus mais quand même euh, de facto euh, bi ñu bi ñu bi ñu gañee quinze députés PS moom dugg nañu. d'accord mm-hmm. pour méngale koog 2022 moo taxoon ma la doon laaj nombre d'investis parce que bii coowu tey bi dinañ ñëw si élection présidentielle bu 2019 ndax boobu itam jur na coow ñu bari gis ne PS rey na boppam ndax demul ci élection lu toll ni euh, parti socialiste élection présidentielle romb ko mais euh, investi yooyu bu ñu ko méngaleeg 2022 bi nga xam ne moo indi coow li fan yii est-ce que PS delluwul ginnaaw ci ànd beeg euh, APR wala benn. non xam nga ñun dañu bokk ci mouvance présidentielle bokk ci coalition bi ñuy wax Benno Yaakaar. ba pare mu élargi xam nga tamit nit ki doo ànd ak moom nga ne lépp lu ñëw ma jël ko da ngay xool comme li ma la wax sànq si kanam si bi ñuy ndorteel que dafa am réel politique tey jii dañu dem parti yi comme li ma wax parti yi gën na bari am na ñoom dañoo dem def mouvement am ñoo xam ne tey dañoo ñëw jàppale président makki sàll te bokkuñu ci bennoo sans compter dangay yaatu yaatu la def bu boo jëlee Macky 2012 bi nga xam ne président moom la àndaloon tamit ñi ngi ci ak ñeneen ñi ngi fi donc de telle sorte que ne tey bu dee da dem ngay ànd te ñëpp wax dëgg yàlla di ci def seen kéemtalaay kattan pour jàpp pour respecter coalition bi pour doxal coalition bi bu dara amee doo ne man rek lii lépp man maay jël. donc am na loo xam ne ne tamit bu dee ñëw na nga xam ne ne que cëral nañ la fi parce que nag wax dëgg yàlla boo jëlee APR à part APR parti bi ñu ci gën a cëral PS la. waaw donc moo tax ñuy wax benn des trois yéen euh, APR ak AFP. non du bennoo des trois. xam nga ñett ñooñ daal lu ñëw. xam nga la représentativité politique nag luñ la mun a wax. loo ci mun a wax lu ñu ko ci def da ngay am représentativité mooy maanaam balaa nga naan naam ne fa. représentation mm. waaw nga am looy peese. donc fii ñun tey boo ne parti socialiste fuy siège ba nga dem fekk leen fa boo nee parti socialiste yaa ngi wax deux mille deux mille dix neuf bi waaye deux mille dix neuf bi kan moo investir président Macky Sall. investir ko nag ba nag presse internationale ak yëpp un un en jour ouvrable ñu ñu accueillir fa Macky Sall ñaata nit a nekkoon foofu Colobane kenn foo sànni mbàttu mu tax parce que loolu nañu loolu la ñu wane te loolu na ñu taxawee te bébét boobu nañu ànd ak moom ndax nag président Ousmane Tanor Dieng dafa ne ànd leen ci àndu dëgg te bu dara yàqu si seen loxo loo leen gis muy def def leen loo leen ci mun seen kattan pour mun mën a def te ci loolu tànk la Aminata Mbengue Ndiaye nii continuer ba léegi donc de tell sort que c'est cette franchise li nga xam ne ne solidarité entraide boobu loolu moom moo tax mais bu doon tey nga bëgg ku nekk dëgg xam naa ne nag presse bi yéen <laughs> bëggoon ngeen dégg ñuy kerepante kii xëccoo naan non li nga ma jox def nii waaye yàlla boom laa la wax. mais yéen seen mer nañu. nee nañu nee nañu nee nañu euh, euh, bennoo PS gisatu ci boppam bennoo mi ngi dee joxatuñu leen. bennoo de gëdd yi nii gars yi xeeb nañ loolu am na si yenn groupe ñoo xam ne ne ñu nga cay wax te pourtant ñu nga yore ay fonction yoo xam ne ne Eh, Benno Bokk Yaakaar a tax ñu am ko ci ñoom. Ah, foo ne pare wuñ pour bàyyi yooyu fonction. bu fekkee ñoo ngi génn di coow non waaw mais xam nga tamit. Hmm. yow la la si yàlla jox. joxu ko ci keneen te kenn nga xam ne ne mu nga fa nag waxuma sax ba Macky di ñëw hmm. mais ñi nga xam ne ne ñu nga sos parti ba toog fa ba léegi xëy na mosuñu cee am fonction te yàlla def na ñu ngeeg seen ngor toog ca parti ba di ci dox donc yow mi nga xam ne na ñëw nga xëy na yàlla def mu bénéficier la nga am leneen tey buñ la tànnul est-ce que war nga jël jël suuf këpp ci donc nag dafa am boo xam ne fu tànn am rek dina am ku kontaan ak ku mer mer yi nag comme ñun dañu am tamit presse sensationnelle comme li may wax mooy ma ne euh, euh, euh, bu ñu nee nii rek ñoom dañuy dañuy jël rek di ci wis ci poobar bi daal di suy si biti ku nekk di sëqat même 2022 aussi local euh, wax nañu ni parti socialiste euh, Benno mi ngi koy gaañ wala APR ak président ah Macky Sall parce que yenn mairie yu bari euh, xëy na jël nañ ko teg fa ñeneen fu mel ni Kaffrine seen porte parole Ablaye moo ko yoroon ñu investir ci waaw waaw mais xam nga bu dee da nga def xam nga dañu ne la local mm. ak législative ak présidentielle la yoo xam ne bokkul parce que local moom comme lu ñuy wax nawetaan la parce que dañoo dëkk ci gox nekk ci gox xam la la fa xew muy gestion de la cité donc ñun bu ñu ñëwee nekk fa nekk parti socialiste te depuis bu ñun socialiste yi ñoo yore gox boobu di fa liggéey di fa gañe bu ñu ñëwee tey ñu dem ba ca biir liggéey ñu dem jëli kenn daal di ñëw indi ne ko kii moo fay nekk loo xam ne ne ko waxtaanee ñu def dara liste yi nga xam ne président daf ko génne woon yëpp ñu ne dañuy publier liste yi ñi ñu def Mermoz Sacré-Cœur kañ ngeen gis ne que liste ba def nañ xanaa ba ba ngeen koy gis euh, Diouf saar mi ñu tegoon ville de Dakar moom moo ko génnee dugal ko parce que kenn ñemewul woon wax ne que si loolu parce que la réalité elle était là parce que lu may wax toujours l'action l'action citoyenne elle est socialiste yi si terrain nañu xam liggéey terrain toog ci bureau def yi yeeg dugg bokkuñu si ñun ci terrain nañu def activité bu ñuy def bu ñuy jaay suñu carte bu ñuy animer da ngay gis dañuy teg suñuy tànn toog ci biti def carte yi voilà massifier loolu mooy an mooy dundal parti hmm. il faut animer ba pare nga di bokk yenn di jël nii xeexante def nii loolu c'est pas l'objectif du parti socialiste donc de telle sorte que ne loolu nañuy jël di ko di ko di ko doxal. waaw législative euh, locales yi 2022. mais bi ñu ñëwee ci locales yi ñoom ba ñu demee dem jël ni teg mais ñun dañu dem parce que dañu exiger au niveau de notre bureau politique dañu ne secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye ak euh, Mame naa Ahmad déposer leen caution. déposer leen sax ñaar au cas où on parle des départements aussi ñun bu ñu demee fenn nga xam ne ne que gis nañ ne que. wax dëgg léegi nañu ñun ñu mën a am ouverture pour war a mën a jël suñu costion wu parti. kon nangu nga ne APR yenn saa yi xaw na leen a gaañ comme si. les non moom laa la mbooloo la. mbooloo foo ñëwee toog xam nga yow tey boo nekkee fenn si rajo bi nga nekk sax boo fa toogee am fenn da ngay jël cër yi xool. léegi nag yow bu dee jël nga si cër bi keneen bëgg na cër ba. place bi nga toog keneen bëgg na ko mais nag bu dee yow da nga nekk ñoom ñoo gagné ñu nekk fi gouverner ensemble euh, gagner ensemble gouverner ensemble ñenn ñi ñenn ñi gisewuñu ko ci fenn bi mais ñun ñi nga xam ne ne que ñoom nañ doon nekk ñu xëccoo ci biir ñun commune Mermoz Sacré-Cœur c'était avec l'AFP te leer na ne foofu kooku munu ko fa Zator munu ko parce que ñun Alpha Bayla Gueye moom mooy su mooy sunu sunu candidat moom mooy euh, sunu coordonnateur vision socialiste au niveau de Benno Bokk Yaakaar moom mooy le le responsable le de tous les cadres ñëw encore ñu jox ko cër muy muy effort mu nekk dafa liggéey donc magu yu ndaw ak def yooyu moom moo indi éclatement mais bu doon dañ ko teg ci yoon ñu ne ñu tey kat ah du doon fii kii la ñu mën ko def mais dañu def ay magu si suuf. waxtu bi mi ngi ñuy dab ñu wax très rapidement ci 2019 rëccuwu leen li ngeen amul seen candidat bopp ndax tey frustration yii nii yëpp euh, gars yaa ngi wax ne PS mu ngi dee PS nangam ak nangam est-ce que 2019 bu ngeen demoon ak seen candidat xëy na am dara. mais 2019 c'était le deuxième président Macky Sall. xam nga nit ki tamit logique pour logique boo ànd ak moom nga jox ko mais fi bëggoon jëlee président Ablaye Wade jóge na fi président Macky Sall ñëw Ablaye Wade daf fi def deux mandats war woon continuer non non Ablaye Wade daf fi def deux mandats nuroowul mm. Ablaye Wade fi def deux mandats Ablaye Wade jël doomam mu nekk ministre de la terre du ciel et de la mer coopération sax boo ko lijjantee ci biti boo ñëwee fii moom bu ci waxul doo du dugg donc nag mu amoon réalité bu fi ne réalité bi ñëw na fii gis ngeen keroog le 21 juin fii nii ci euh, le 23 juin gis nga ko fii ci assemblée ñun ñi ñëpp ñoo nekk ko man ma ñoo tëye woon euh, banderole bi touche pas à ma constitution fii ci buntu musée bi donc fii nañu nekk ku nekk xeexoo bi kenn mënu wax ku nekk jóg nga parce que loolu nañ doon xeex parce que tey mu doon Ablaye Wade ba muy am deuxième mandat amul woon problème yooyu donc tey nga ñëw Macky ñëw bu Macky Sall ñëwee nga jox ko benn mandat mu def te benn mandat bi dëgg la sept ans la woon il a voulu ramener à cinq ans conseil constitutionnel ne ko munoo jël changer ko en cours de mandat et et ça aussi c'est la loi. mais gis ngeen seen bopp ci mandat boobu. ah non on ñun ñoo ñoo ci jàpp. bu doon yéen a non gis ci seen bopp moo tax ngeen àndaat ak moom. ah loo xam ne ne ñoo ko ñoo ko sosoon 2012. téye ko muy dem dangay ngay ñëw dem ba nga xam ne ne que may na moom mu ne dafa buggaat tey parce que nag buggaat yàlla moo la koy jox. Mhm. am na ñoo xam ne ne ñu ngi fi nekk fi dem munatuñu feebar nañu wala leneen wala yàlla jëlee leen fi. xam nga kooku doo fi def mais yàlla la fi teg ne la fii dem nga léegi nga ñëw waxtaan ak say ñooñ nga ne leen ah mayaat leen ma deux mandats duñ la may deux pour nga mun a parfaire li nga xam ne moom nga commencé woon. léegi 2024 nag parce que nag xam ngeen ne Ablaye Wade ba lu bari. daf fi bari loo xam ne dañu nekk di ko jubbanti di def parce que tey ñu bari may ku nekk naan dette bi te ñu nekkoon ci Ablaye Wade ñoo fi nekk di wax. bu ñu dette bi dugg na fee génn fi te bor yooyu mu ngi fi te am na bor yoo xam ne ne sax yu yu Abdou Diouf wëccoon donc ça veut ne fu mu nekk nii da jël ngay fay di liggéey mais nag mënoo jël li nga am yëpp nga dem fayee ko bor tey adduna bi. day dox te munoo bañ a leb itam. ah non leb moom. d'accord États-Unis sax day leb. waxtu bi xoj nañu honorable ah. <laughs> li ñu war a wax yëpp ci PS xam naa ne bari na xajul ci benn émission léegi 2024 yéen a ngi cee xalaat xëy na pour. gën a dëgëral PS ndax nii moom bu continuer parti socialiste ci boppam moo na am problème coow li bari na. non du du question sax dëgëral PS PS moom na. Hmm. xam nga ñun. wax ma ban parti yi nag wax ma ban parti rek kay woote di def li ñuy def ñëpp ma ko. coow yi yëngalul dama ne wax ma ban parti waxuma coow de wax ma ban parti mooy def ñun lu ñuy def ñun suñu parti da ngay ñëw toog ñu toog ci instance secrétariat exécutif national élargi nag ñun nga ñëw toog wax BP bi passé gis nga dañu ko dañoo def secrétariat de jeudi mm. non amul tàng amul tàng mm. ñun benn camarade nañ fa am xam nga souvent dañu bëggoon susciter xëccoo diggante Aminta ak Serigne Mbaye Thiam ñi Serigne Mbaye Thiam yore ci seen waaw loolu itam ñu ngi koy rumandaat waaw mais xam nga nit ki moom laay wax moom la xalifa defoon gis nga lu mu ko coûté donc ñii danga ñëw di def te wax dëgg yàlla Serigne Bay Càmm ba ñoo ñu defee wax na la muy wax ka ko fa doon bëgg indi muy Mamadou Wane dafa géer dafa génn moom ci boppam moo génn te la la ñu xëy gis ci suba mu bind ko ci quotidien bi c'est pas vrai parce que moom ba ñu ñëwee ñu bind ne kan moo bëgg intervenir dañu inte dañu bind on était 62 xaw ma 68 intervenants ba ñu limité temps bi à 2 minutes bi ñu ñëwee bind comme c'était des feuilles ñoom Aïda Sow Diawara ak ñoom Cheikh Sey secrétaire permanent ñoom ñoo ko def honorable kii tamit euh, présidente Aïda Sow ñoom ñoo def liste yi ñu teg donc bu jëlee liste yi liir liir bu ñëw jox lu tax Mamadou wan génn foofu di wax loolu waxul nekk dafa bañ ci loolu de xam nga lu mu wax mu nekk président ki mu jox parole mu wax moom moo ci tegu moo ko jiitu mooy def positionnement si prise de parole te jox la parole nga war a wax waxal li ngay wax mais on a remarqué ne moom c'était tout juste un moyen pour voilà pour indi coow parce que à chaque fois day ñëw naan waaw d'accord ñu fi président euh, président ay euh, Aminata Mbengue Ndiaye dafa dem def fii Louga lu mu def nii de président Aminata Mbengue Ndiaye dafa war a ko wax congrès yow yaa ngi naan congrès on a les ventes la vente des cartes ñu ngi ci. donc moom si moom on a des moments réel politique bu ñëwee moment bi nga mooy moment crucial boobu ngay toppatoo. léegi nag bu ñu jógee ci lii dañuy dem ci vente de carte yi pour dem ci ci ci congrès renouvellement parce que même avant li am na ñu mhm. am na coordination yi dañu renouveler. am na ñoom xam nañ ba pare ba dem au niveau. mais ñëpp parewuñu mais ñëpp parewuñu. léegi nag bu ñu ñëwee nii ñu dem. Hmm. après les élections nga dem defar noonu tu prépares maintenant pour 2024. effectivement que parti socialiste dafa war a pare boppam pour 2024 nous sommes dans une coalition. booba di ngeen am candidat am déet. non dama ne on est dans une coalition. Hmm. tey lu ñu gënal tey mooy dans cette coalition tey ñu war a mun a xool nu ñuy porter am koo xam ne daf fay nekk. Ah, benn socialiste pourquoi pas parce que ñun wax dëgg yàlla dañuy dem ci performance assemblée bi ñu nekk ñun fii. Eh, dañuy bu doon kan lay yóbbu. ah loolu nag yàlla moo xam dañuy liggéey ñun on va on va bientôt vers les une université d'été donc avec des réflexions yu mag yoo xam ne majeures yoo xam ne dañ ko génnee cadre yi génne ko. avec de facto Aminata Mbengue Ndiaye léegi ñu ñëw taxaw wax ci loolu. du nekk de facto ñu demee nag ñu xam kan mooy mën a porter ñu war ko mën a def. donc nag bu keroogee yàlla moo xam gudd fan ak wér-gu-yaram ak talak fekkeeku rek wérle ba boobu donc de telle sorte nga xam ne ne que ñu on est pour def ko mais on aurait aimé comme nous sommes dans une coalition que ñu def rek comme ni ñu doon def comme des primaires ñu xam ne ne que ah ñii bëgg nañu ñu war a mën a positionné ñu xam waaye 2024 daal PS dina wax ne ñun bëgg nañ euh, l' essentiel moom laa la wax dama ne la bu bu dox jeexul waaxu si lu jeex bu bés ba jotee rek ñu dox ci waxtaan ci gars yi nee nañ PS ñi ñu jox ay poste ñoom dañoo toog rek affaire bi neex ñu langaa mu fàtte ñi si ginnaaw ah, moo tax waxuñu waxu génn waxuñu waxu jubbantiku duñu kaas duñu mer lu ñu leen wax ñu ne gooma ne loolu ay ay waxu ñeneen la wala waxu presse bi la xam nga presse bi nag des fois ñoom dañuy jël man de li ma lay wax moom ay socialiste presse presse yi dañuy jël di interpréter waaye li am solo ba am eh. solo je dis que keroog rek maa ngi koy wax ci bureau politique nee naa leen député yi am na ñoo xam ne dañ leen réinvestir comme man. mais am na ñoom réinvestir ñu leen. ak ñoom bu maam bu naama ak euh, dañ waaw ñoom dañ leen réinvestir ak ñoom Aïda Sow Diawara Cheikh Seck ñoom Alioune euh, kii Ablaye Wilane comme ñi nga tudd ñoom Yacine Ndaw ak ñeneen ñi leen réinvestir ak ki nga xam ne ne que tey mi ngi yore tête de liste euh, département wu Nioro muy Ali Mané. réinvestir waaye nee nañ place ngeen am baaxoon. non xam nga place moom yàlla mooy joxe parce que xam nga nit ki da ngay dem rek nga liggéey. donc si agencement yi loolu nañu jël teg te comme li ma la waxee tey la la majorité présidentielle est élargie ñu baree nga fa teg nañ fu ñëw lépp li nga xam ne ne que moom nañu wax place dañ doon wax ne diggante Bounama ak Yaya parce que bu naa ma mooy responsable Yaya moo waroon a jiitu donc leneen yi teg ba pare ni ñu leen defee écart yi moom moo bari moom moo moo moo waaw eh, moo ngi quarantième place donc loolu la donc de telle sorte que ne si problème boobu nañu wax waaye tamit xam nga cër yàlla moo koy joxe waaw te nit ñi dañu dem ci élection nañu jëm pour xeex te li leen di dugal mooy quotient national quotient boobu dinañ xeex pour bu naa ma mën a dugg ak keneen ak keneen parce que ba ñuy def 2017 dem nañu ba ay trente et quelques donc yàlla mun na def lu ëpp loolu donc nag xeex la boom dañuy ñëw te comme li ñuy wax nag àdduna mi ngi nii sa kanam te nga nekk jeune nekk loo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp naw loola au national même international donc tey leneen ak leneen mi ngi fi mais dañu bëgg ko moom mu dellu si waat parce que li nga xam ne ne que liggéey na ko fi yore poste bi mu yore woon nekk na poste boo xam ne ne que satisfaction rek nañ si am ndax nag au niveau de cette assemblée nekk nañu loo xam ne ne PS référence la fi ci li nga xam ne ne ñu bari danga leen dégg ab absentéisme doo doo doo ko fi dégg man mii di waxee bu ñu jegee dañ may wooyee bouton mi ngi nii fii di wax <laughs> donc de telle sorte que ne quand on parle de de de la participation au niveau des commissions comme euh, au niveau des plénières boo ciy xool nga décompté le parti socialiste donc dafa am loo xam ne nit ki bu ñu la ko cëralee jox la da nga koy wane ba nekk référence. kon daal ci tënk PS 2012 ba 2022 gis na boppam ci ànd beeg. Euh, ah, noonu la amul leen lu ngeen ci rëccu. dama ne sa biir kër nga yore jur say doom am sa njaboot nekk fa te da nga dul am satisfaction yëpp. dangay jël sa dépense yaay joxe dépense joxe yépp tey jii ngi la neex ba pare du loolu sax tey da ngay gis sa doom nga nekk ci fenn nga dugg ci biir kër ga mu dem ne la man bu ànduma ak yow maa ngi ànd ak feneen te yaa ko yaa koy jox mu lekk mu nelaw mu def lépp mm-hmm. donc nag nga xam ne ne que ànd yàlla moo koy teg parce que foofu la ko yàlla faratalee donc nag da koy jox gëdd nga xam ne ne que bu jëmee ci kanam ci ci jikko nit ñi la toogaay nit ñi mm-hmm. bu yemee fa mu yem nag nga xam ne ne ko ci jikko yeeg toogaay nit ñi la mais ñun lu ñu bëgg mooy tey lii nga xam dañu gunge président Macky Sall mu ñëw ba am deuxième mandat dinañ ko jàppale ba 2024 pour mu yeggali mandaam parce que loolu sas la bu ñu defoon te sas boobu yàlla daf ñu ko teg ndax moo moo antu ba nga xam ne ne mu gagné. boo waxee troisième mandat du ngeen ci ànd. loolu moom bu waxtaan bi ñëwee ñu waxtaan ci te nag wax dëgg di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la gërëm yow tamit faatu parce que lii la ndax booy dem da gëstu man journalisme dafa nekk lu ma lu ma neex mais dañuy dem gëstu mais ñenn ñu bari gëstootuñu dañu bëgg toog ci plateau yi woo nit ñi ñuy sànnante xeer rek waxante yu ñaaw te man loolu moo tax ñu bari du may du may dem ci plateau je préfère rester sama coin liggéey li may liggéey pour que ñi nga xam ne ne que soxla nañu ci fànn bi may liggéey bu ñu ñëwee rek ñu leeral leen ci loolu pàcc pour mu jëm waaye nag nañu xam ne ne que PS wax dëgg yàlla maa ngi gërëm sama secretaire général la présidente Aminata ngi Ndiaye bi nga xam ne nekk moom moo nekk ci bopp parti bi ànd ak ay nawleem nag ñu nekk ay gor yoo xam ne ñu ngi ko gunge jàppale ko te comme ni ñuy wax rek yàlla mooy mooy sàkku mbooloo